Sidi Diakhaté dajale doomi senegaal yi e ngirit fen dong muy fii ci Kajoor mu doon capitalu li nga xamante ne moo jëm ci wàllu làmb <laughs> ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi léewtoo di combat boo xam ne Sidi Diakhaté moo ko tëgg Balla Beye daw na jël Bombardier Bombardier lal na ko Bombardier lal na ko Balla Beye jël na Balla Balla daan na Bombardier Balla Beye daan na Bombardier Balla Beye daan na Bombardier